asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yi moo xam ñi ñuy suivre ci Lutte TV la wala Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag fi ñu toog ah ñu ngi biir Lutte TV fa tey fi la ñuy waxee ak yéen li ko waral nag mooy dafa am lu bees teq lu taxaw lu ñu dajee ci paket ki ko def moom mooy Ibrahima Diop borom Kajoor production Kajoor production nag lu bees la ci làmb ñu koy wax ahlan wa zahlan na dal ak jàmm ñëwam bii daal yàlla bu mu li olof di wax naan tëggam ndënd ak séb mi neex benn naqari benn yàlla bu mu ko doon yàlla na continuer di tëgg bay tëgg yeneen combat yu ëpp yi waaye nag combat bi mu tëgg ci ji jamono ku xam ñaari xale yi di nga xam ne combat espoir pur la tëgg ndax njaaytin mii toog sama droite bokk ak tafatin nday ak baay bàyyi ma njoon mii junior toog sama gauche bokk ak baay ma njoon numéro un nday ak baay kon defe naa Ibrahima Diop juumul ñi ko xalaatal tamit juumuñu macha allah parce que nag ñaar ñi mu boole ku nekk ci keppaar gi nga fekk ngembali waaw sa mag a ko yore bàyyeegut nga ñëw ne ko damay forcay tànk ñoom ñaar nag ñu ngi nii toog dama leen di jox ñu nuyoo xamu fan laay jëkk sa ba bàyyi ma njëkk sama droite waaw bàyyil ma dem droite mbër ngi lay ziar. Babacar naa la di am nga jàmm am nañ jàmm bu baax baax baax. Mhm, nuyool waaw di nuyu waa Lutte TV ak waa Exivox. Mhm. di nuyu sama. ak waa Bawol waaw di nuyu waa Bawol TV. di nuyu sëñ Xaadim ak Mor ma àndal. Ah. waaw di nuyu champion Baye Mandione di ko bëggee bu baax waaw di nuyu waa Bawol ñëpp nag waaw di leen ziyaare bu wér a wér a wér a wér uh-huh. la demee kookoy Ndiaye Tine acca Senior maa ngi lay ziyaare yow tamit waaw Babacar maa ngi lay fay di wax ana auzu bi kalimaatillaahi kulluhum di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu uh, CTV ñëw ku si mel ni li TV Equivox Arena Baol tamit TV di nuyu gars yi fi ne yëpp di nuyu sama adversaire comme ni mu ko waxee rek waaw di wax ni man maa ngi Lutte TV welcome xam nga di lu nuyu Babacar bu baax a baax di sant sama père euh, Bourkhane sama ménagère ak sama copain bi ma àndal muy Socé waa di nuy waa Thiaray jàmm gën waaw li wër Thiaray yëpp waaw. il faut ñu nuyu ñi nga xam ne ñoo leen di engagé di seen seen ay contrat muy les ménagers muy ki nga xam ne moom mooy mbay Ndewaan indi tey Ndiaye ak ki nga xam ne moom mooy Bourkhane Wade ki nga xam ne nii moom moo di Baye Mandione Junior defe naa loolu noonu la demee waaye tamit di nuyu euh, Mbaye Diallo di koo xam ne tamit quelqu'un la ci làmb ci côté management mais ci côté tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy les entraîneurs defe naa moo leen sax jiite waaye tamit sunu frère sunu rak sunu xarit jamaykee nga xam ne moom itam macha allah olof na na ko yokkul yaa wàññi moom tamit teew na fi Modou Anta tamit sans frontière moom ne naa ko moom yow làmb juy dox di taxawaalu nga rek moom tamit ku jara ñaanal la Modou Anta yàlla na sa jàmm yàgg mais Ndiaye Ndiaye kii nga jàkkaar lool nii xam nga ko a ah, xam naa ko. waaw man xam nga du ma ragal. doo ragal loolu moom xam naa ne du ma ragal sax xam na loolu. te dama koy sant bu baax di ko ci gërëm. lu dama xamante ne sama kamaas amut fu mu taxawaalul amut fu ñu ko tegul. Mm-hmm. moom mu jël ko loolu dama cee kontaan ko di ko ci ñaanal. Mm-hmm. waaw loolu dama cee kontaan bu baax di ñaan yàlla ma ci ndam. doo ragal nga wax. waaye bawol ragal amu fa yow it Babacar xam nga loolu bu baax non bawol amul ragal de. boobu la mu ragal. ki nga yaakaar kon moom maanaam euh, buñ la nattante ci wàllum fit kon. waaye yow looy wax loolu. kii daal ñooy ñaan yàlla bés bu yàgg si jàmm. Ndiaye bés ba moom non waxuñu bés ba moom bi incha allahu rabbi incha allahu rabbi dina yegg ndax yàlla lu baax lay def waaye da ngaa dugg ci wàllum fit ak ragal ma lay laaj maanaam wàllum fit buñ ko doon nattante yéen ñaar. non man nanguma gën góor góor tax gën góor gu taxaw. góor gi nga lekk xaalisam. waaw moom laa lekk xaalisam mais xam naa ne li ne ci man newul lu leer laa la wax lim na ji man newul ji moom lu mel ni mili laa ba bàyyi ma ñoon la de te bàyyi ma ñoon ku ne xam na ne aw fitam ne nañ mbër yi san ne Sénégal est-ce nekku di numéro un ci ma ñu ngi profité di ko baax la waaw borom baax la ñu koy nuyu bu baax waaw waaw noonu la ah, ma dem ci signor waaye man de am na lu may lonk fii sax xaw ma lan la wala sees bi ma bëgg a dee signor sa waaye day na ci wàllum fit ne na ba wal ragal dëkku fa bi ci des na li ne moom ci fit xaaj ba yoroo waaw loolu moom la concerné da nga nit ku ne li li ne sa xel rek moom ngay wax dama koy nangul. Hmm. mais fii tak ragal yooyu amul sens. admissif la ma dox si kawam jàpp ko daan ko moom moo tax a jóg. yow itam loolu nooyul lool. incha noonu lay demee. ci kaw Ndiaye Tine jàpp ko daan ko. waxoon naa ko waxaat ko. waaw waxoon nga ma ko ca kii nekkul sax man ak moom yoonu làmb. adversaire la da jox naa ko cër. nee na avance am bëri dañ ko doon daw. billaahi bu njëkkee woon si man combat bi du yàqu. bëri nañ ko bu yàgg. Mm. incha allah dama koy daan xooli leneen. Mm-hmm. est-ce que xam nga ko. xam nga ko. xam naa ko bu baax mooy njaaytin comme yeneen adversaire yi nii rek. waaw non parce que parce que boo déggee Lamine wax la loolu ça veut dire que Ndiaye damaa seetaan ay combat am yëpp dafa intense. Mm-hmm. duurante ba daa métti du bàyyi day xeex rek day xeex rek ba jële di am. barki arxuraan laa waat loolu mënoon liggéey bu mu si bàyyi dara nag gën a xeex gën a entraîné lu mu ñëw fekk ko fi. Mm. ñun tëlewuñu dara. Mm-hmm. maanaam fu mu baat nga kupp. nice nice kay dama koo jël ak xel mu dal damay reer ba suur añ ba waaw nelaw ba yandoor. mu daan dama koy daan. mu ndax combat bi du romance. romance comme. waaw jaaroon nga bawal. waaw bur maag bursin waaw. bëriwoon na coow bëriwoon na coow. mais nga bawal de. mais bursin champion la. bëriwoon na coow làmb ji ma defar recours mais instant bu xale laa. troisième combat la woon ñu jox ma grand combat mais làmb looy gën a dem rek di gënam a expérience mais làmb ña fa nekkoon ñëpp ñëpp dañu ma defal recours jël amu fa mais du ma saltel arbitre moom la jox jël moo ngi sama yo moo ngi si yoonam maa ngi sama yoon xëy na làmb nañ boolaat wala ma dem bàyyi ko fi mais en tout cas lu si mënti dem daal man maa koy supérieur sama gëm-gëm laa waxee quoi. yaa hmm. kon daal bu bawal boobu moom maanaam fii la nara fii moom day leer. du revanche man du revanche man. man adversaire bu ne ak ni ma koy waajalee. mais kii nag tax ci ripay mag ja de. champion la ndaanaan la. te Tafa champion la xam nga da nga ne Tafa ne Ndiaye. waaw waaw waaw bokkul. tin lañ koy wax kee Tafa tin ba waaw bokkul des fois gis rakku mbër boo xamante ni comme li magam di def en général du ko def man dama ñaan def loo xamante ni sama mag defu ko. sans comprendre moo tax ay rakk yu mbër ak man loolu concerné ma taxul ma jël combat bi dama koy jël ngir daan ko xoole leneen. Hmm. Hmm. tey su ma la laajoon yéen ñaar bu ngeen sampee jaaga xeex benn deux minutes maanaam bu pënd bi wuree kan mooy dem teer. waxoon naa la ko man ak sama adversaire adversaire bi passé. ñun caaree leen dëkk dañuy xeex te daaw ñu fay dara bi ngeen ne booy waxatuma naa ne ñu dem ba lay fay nga am ay tuuti mooy weccit foofu xam nga. ah affaire gars yi xam nga day gën a neex. amul dara loo xamante maa ngi koy suur ci combat Ndiaye Tine mii nii ku ma jox cër la nag mais maa ngi ñaan yàlla may man dam ci kawam. Hmm. Mhm. sa lu bari de xeex ba mu dégg nga li mu wax moom leer na daan jéggi dem seeti leneen rek. li ma wax lu mu sóorul ci man li ma sóorul ci moom moo ko ëpp bàyyiwuma ko sax kii du ma ak lu leer laa la wax. baba du yàq moom moom mu ne du yàq mu du du mook yow. am li ne ci man kii taat bi suuf lee moo ko fa bàyyi te lii maa la ko wax. na ñaan yàlla yóbbuñ ci jour bi rek. waaw te xam ne deux heures lay nag Bour Sine daan na ko mais man damay ñëw daan ko damay ñëw confirmer rek mu nekk deux heures rek. loolu yàgg na. ñoo ñoo ngi ci lan. 2021. boobu ba léegi daanu ma. boobu ba léegi daanu ma. sama victoire laa tegale. ca Bour Sine la barke Arxuraan 2016 2017 ñu ngi ci 2000 lan. 21 damay bëre bëre bërewaat bërewaat bërewaat bërewaat ba 2021 te yàlla damay suturaal ñu may ndam kon na gëm boppam nag ay Bour Sine Samba Sène ak yëpp benn la. moom na gëm boppam rek. yi nga nit ki li nga liggéey mooy feeñ ca géew ba làmbay jaratu ñu bëri ay wax ak yi nañ ñaan promoteur bi jox ñu date. ma confirmé ñëw daan ko jëlee bu set wicc dama feete caare comme ni ma ko daan defee. ni ko daan defee. Ndiaye yaa kii ku dàq a bëri. a bëri maa a xeex bëri moom nangu nangu ma gën yow ne taxaw na naan maa la dox a a da nga seetaan ay combat ba tax nga ne seetaan naa ay combat seetaan naa ay combat seetaan naa ko gis nga li mujj bëri nam def adversaire ba seetaan naa ko combat boobu maa woon stade seetaan naa ko bu baax li ci li de il man man damaa ragal loolu Ndiaye ngay waxal de Babacar gaa xam nañu bu baax lu leer laa la wax. Ibrahima Diop indi na lu doy waar Kajoor production wallaay indi la Mourante Mourante combat ngi de sawaay de nee na moo la dàq bëre. waaw loolu loolu xalaatam la rek ba ma daxee bëre yooyu yëpp xalaatam la dama koy nangul. gis nga du teg la micro yi caméra yi dara nii mën ngaa wax lu la neex man ngaa neexal <laughs> waaye. <laughs> waaye waaye arbitre prip fa ngay xamee bandi bandi. man bandi géew laa man. waaw man amul taa amul lu may sóor nit ci biir géew. arbitre sifflé rek man lekk la rek laay bëgg. coob coob <laughs> lekk la ba nga. billaahi man adversaire Badou adversaire du ma kar ma man saa ma mënoon jël ay ras raquette nekk ka bëm mu sedda beneen ah. ñu dem ñibbi saa. <laughs> yow sax di jooy sax moo tax ne waa këram gisaat ko. instant bi jàmm amul. jàmm jéem a xam nga signé nañ contrat bi. jàmm amatul. tey bi ñuy nuyu nax naxante naan ay jàmm nii amul. waaw instant bi si waay. mbàccum gerte la. ci li bax voilà man na sëkk. mais moom xam na ne xam na ne maa gën a bëgg combat bi fukki junne yoon lu leer laa lay wax te lu mu ma jaral dinaa ko ci def. ci kattanu yàlla waaw. Hmm. lu mu jaral ma pour am ndam rek dinaa ko def wax entraînement moom waxuñu ko. waaw. actuellement yaa ngi ci kon. waaw yow luy maa ngi ci xanaa dëggoo ni may waxee damaa contact entraînement bu tooy fii mu lay waxee nii lu leer laa la wax. mais jéem na te te a ngi ci préparation. mais Lamine li li li doy waar ci combat bi mu doon te ah ñii ci préparation. ndax ji xam 25 décembre. 19 décembre Tafatine Boy Niang 25 décembre xoyantaan Baye Mandione kon yéen ñaar ñëpp ku ci ne fi mu ne yaa yaa ngi uufu ci fenn. yaa ngi ci contact yaa ngi ci combat. waaw moom xam nga rek moom na xam ne ne si moom rek mais bu ne man parewu ma wala nii man yow nga pare parewu ma loolu concerné wu en tout cas liggéeyal rek laa wa wax man ma liggéey li ma war a liggéey. ok war ngeen mën a bëri décembre de. kii Seydina Mohamed bu ñu ko jàppoon un mois ma bëre kii un mois. pare na dimanche kay bu doon dimanche kay léegi na ne man mi nga xamante chaque jour damay contact chaque man chaque jour lundi ba di samedi sax damay contact yi waaw dimanche bi sax bu ko nee waa ji sa waay bu pare woon mooy loolu moo ko a neex waaw nga mu ne ma dem jëlee sama sama gars yi moom mu indi gaayam ñu bëri léegi léegi mu jeex maanaam ñu ëffal leen fii ci kaw ma ne jarul moom eh. bu fi combat amee kuñ daan dañ lay jël moom ma jalul mbot ah, jël Ah, jarul daan dañ lay jël ci jarul mbokk yi ñëw manager am a ngi fi sama manager a ngi fi kay ah. loolu kay gën a dee daa daa jan mbokk yi ñëw kon xaaral ma jox Ibrahima Diop mi nga xam ne nii moom moo war waral bés bi dafa am loo xam ne nag Lamine dafa jaar di wax maanaam ñi nga xam ne dañuy ñëw ci làmb di ay promoteur maanaam ay promoteur yu bees dañ leen di ñaanal yàlla ñuy ñëw liñ tax ñuy ñëw yàlla nañ ko fi fekk parce que tamit gis nañ bu ci at yi paase ay promoteur yu ñëw gis nañ fi ay Baba Diaw Jam production ah ay Gibson yooyu yëpp ay structure yu bees la yoo xam ne yàggagul si làmb ak waa rent DKR xam nga Vox Arena Leewtoo c'est des structures yoo nga xam ne yàgguñu ci làmb mooy nuyu suñu doyen sunu grand frère Dembélé yow mention spéciale Kajoor production maa ngi lay ziare Babacar maa ngi lay fay am nga jaam ñoo ngi sant yàlla bu baax ana waa Pikine ñoo ngi fi da nga Pikine ak Kër Massar Pikine ak Kër Massar. waaw voilà ak Kajoor. ma ak Kajoor. te Kajoor ko la moo la ko laajee faaw ma jaar Bawol ak Njàmbur ndax ñoo diggalooy tool rek nag. waaw benn benn la de. benn zone bi la benn zone bi la rek. tey nga ñëw ci làmb comme promoteur parce que ci contexte boobu la ñuy waxee bi nga ñëwee ndax fan yi passé dimanche bële passé Lamine fekk naa ko arène ba mu ne ma am na lu may waajal te bu sottee dina neex ma toog ba mu woo ma ne ma njaay Tine bàyyi ma ñoon si ñoo taxawal naa ko ma ne ko ku lay xelal xanaa foofu Lamine Seck fa jaar wala Moodu Anta muy lu doy waar lii nga taxawal nii ak ñëw bi. waa Lamine kii Babacar ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu assistance bi di nuyu sa mbokk yi ñoom Modou Anta ñoom Pël Dembale moom maak moom yàgg na Lamine sama rakk la ñoom ñëpp ñoo ngi leen nuyu di nuyu ñaari champion yi Ndiaye Tine ak euh, Baye Mandione wax dëgg yàlla ñu nekk ñu neex a waxal nekkuñu ñu raisonnable. mën naa ni waxtaan bi lépp ci benn fan la. ñu hmm. waxtaan suñu borom def ñu tombé d'accord. di nuyu itam kenn maa ngi koy fàtte moom it moom sama waay la moom it waaw. waaw tant promoteur. waaw te comme ni ko waxee rek làmb moom. Hmm. comme dafa nekk suñu sport national. Hmm. bon gan lañ ci wàllu promoteur. mais duñu gan ci làmb. waaw ndax ànd nañu ay mbër. ba ñu dégg roi des arènes. ku su ni Eumeu seen ku su mel ni Eumeu Sène. ah Eumeu da nga ànd moom. waaw moom daan combat yëpp kay ànd nañu ay boñaa Niang ñoom ñëpp seeni mbapat comme suñu esport national la ñu ne pourquoi pas ñu mënuñu ñëw contribuer ñu tamit ci suñu wàll ci ci làmb ji bokk ci développement li li xam te ne day suqali ci développement réew mi mhm. ñu ne nag dinañ ñëw xool ñu ci contribuer daal mhm. waaw loolu daal bokk na ci li ñu gën a indi ci làmb ji mhm. pour contribuer suñu développement Dembélé li mu wax am na solo parce que nee na promoteur bu ñëwaan day tib ci goxam yow bi nga ñëwee tibboo ci sa gox da ngaa génn Pikine tëggoo maanaam tëggoo say mbokk comme ni ñu ko mën a waxee ça veut dire que Caaroy nga dem ak Bawal te doomu Pikine nga te Pikine bëri nañ mbër defe naa question boobu am na solo trop loolu lu ko waral. waaw nit am na foo xam ne boo fa tolloo da ngay tëddee ñaaxaanaay te dañu war a tëddee ñaaxaanaay toll nañ foo xamante ni waruñu xool Pikine wala Guédiawaye wala boo lépp Sénégal Bawol ak caaro yi tey Caaroy mënoo ko génne ci Pikine ndax ci département Pikine la bokk kon ci Pikine la bokk ba tey waaw kon tu bëgg nañu tëgg tamit ay mbëru Pikine bëgg nañ tëgg mbëru parcelle hmm. bëgg nañ tëgg mbëru Géejawaay képp koo xamante ne raisonnable nga ci li ngay wax hmm. ñun pare nañ pour tëgg la. Euh, Dembélé moo laajaat ba tey mu ne daf la gis nga sonn lool ci Eumeu seen est-ce que say bés mën nañu xaar Eumeu Sène ñëw fa ba tey question Abdoulaye Dembélé suñu làmb la. pourquoi lu ma nekk moom daf ciy nekk. waaw lu ma nekk def ciy nekk muy ay Boy Niang ak Ama wax li maa loolu parce que tamit li ko olof di waxee dañuy fay naar bi xoromam ñoom ñoo doon ayle ma ci sonn ton su ma aylee <laughs> dañ ci war a sonn duñu xaar sax ma di leen woo le fait que ñu gis ma nii rek ma génn seen seen mbir la nit ki nag li nga bokk ak li nga moom du benn kon seen yëf la général gàmmu Gueye tamit maa ngi ci. man général mu Faas. Faas. ak Gamou Gueye mu Tëngéej. ak Gamou Gueye bu tëngee ñoom ñaar ku ci ne fi mu ne ci yaakaar naa ci bu defet nga mujjee. waaw loolu daal bëgg naa ko bu ñu raisonnable moom. comme comme li ma wax ñi rek démb seeni kilifa man leen ku ci raisonnable. tey tey tey bu ñu ñëwee bu leen neexee ñu tàggoo yóbbal. Mm-hmm. waaw ku ma ci waxal daal boo raisonnable mm. amul ay xaarama ñëw wala ma dem fay. di kontaan si promoteur bu bees parce que xam nga ñun làmb lañ xam. bien sûr bu ñu gisee keneen ku bees bu dugg ci làmb. Mhm. dañ ko war a kontaanee. vraiment ñu ngi gis naa ko si ay loxo yu wër. bur xaan wadd bëgg làmb xam ko. xam mbër bu nekk li nga jar. Mhm. yaakaar naa ne ku dugg si euh, encadrement burxaan doo ko rëccu euh, gis naa tamit may ndewaan mhm. bëgg mbëru bawol bëgg tafaatin bëgg njaaytin hmm. ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci écurie bi vraiment bëgg naa tamit ñu am reconnaissance yi moom parce que gis naa lu mu sonn ci ñoom waaw vraiment il faut ñu am reconnaissance yi moom tafaatin na ko yóbbu màkka na ko yóbbu màkka loolu vraiment lu baax la waaw Mbaye jàlloo mbokk promoteur bi la sonn tamit ci làmb chaque jour chaque jour dina woote mbër sàngam bind leen ci moom mbër sàngam fexee ba mu am combat vraiment ñii ñëpp état dafa leen war a am amal reconnaissance chaque année ñi am benn enveloppe yi nga xamante ni dañ koy jagleel acteur de la lutte sonn nañ ci te ñu bëri amaguñ dara xam nga di leen félicité euh, di leen remercier ci liggéey bi mm-hmm. vraiment yéen suñu fierté nga parce que bi ngeen ñëwee yow ak Lamine ak ñeneen mm-hmm. pël bu rafet mm-hmm. yéen ngi def liggéey bu am solo vraiment euh, liggéey sur le terrain la man mun naa wax ni def naa 16 ans ci làmb mhm. may toog bureau mhm. mais sur le terrain journaliste sur le terrain simplicité bëgg ñëpp mhm. combat bi nag combat amateur waaw <laughs> combat amateur fexee leen nag bañ tëgg ko Iba Mar ah. te fees dal ah, te dina neex parce que Iba Mar Diop euh, stade <laughs> te damaa bëgg damaa bëgg promoteur ñuy feesal te waa ah. yi nag dañoo mànkoo jamono ji ah. te loolu avantage la donc xam nga sax li nga def ah. parce que kii rëg-rëg dina ko seetaan dina ko gunge dina ko préparer ci combat kii mu ngi préparation ak Tapha donc combat bu neex la bi nga xamante ne vraiment chapeau à toi wala ñëpp jàppale pour mu doon réussite Lutte TV nag sama Lutte TV la mm. directeur bi sama waaye la Lamine mm. ak Euh, ba eh, Ibrahima. Uh-huh. Euh, PPV bi tamit ñu ngi ci def li nga xamante ne pour le développement de la lutte. Mm-hmm. ñu ngi leen di féliciter ci loolu noonu. Mm-hmm. parce que man ñun làmb la ñu xam. Mm-hmm. bu ñu gisee luy avancer loolu làmb rek dañ koy encourager. le combat bombardier yàlla na ko yàlla may ndam tey. bay bëree ak euh, Marius. PPV lañ koy lañ koy ah, seetaane donc c'est le PPV moo xew jamono ji léegi. voilà di encourager mbër yi. leen wax ni ñu jàppale seen i encadrement. ba pare ñu booloo seen écurie parce que booloo fair play ak ak discipline dafay dafa lu lu ñoo rek day ànd ak yow. vraiment kontaan naa ci. merci beaucoup merci merci Dembélé. merci kooku mooy suñu doyen Abdoulaye Dembélé ah. Abdoulaye Dembélé kàddu yi mu yëkkatee am na solo <laughs> xam nga moom moom ndeysaan moom itam dafa jar a jaajëfal parce que de Mbaye Diallo mi xam ne li li may wax boobu ñun ay dañ doon nekkoon ay supporters rek di dun làmb Mbaye Diallo intégré Jamaïcain Jamaïcain lu ñëpp xamul mooy yor na diplôme d'entraîneur te loolu ci mbay Diallo mais la jaare ñu tàggat ko ba mu yore entre tey mën na tàggat mbër yi loolu yàlla dogal na ko si moom yor carte de presse yoraat tamit carte promoteur kon jam saa <laughs> yor na carte fans club ndax xara xarañ. ñoo ko bokk <laughs> xarañ daal ñëpp xam nañ ko. <laughs> loolu passé la ak carte marabu waaw day ñaan Lamine sega <laughs> daal Lamine Lamine bokkul fenn Lamine li tiwi la bokk mais maa ngi lay ziare tey sa mbokku sa frair ñëw di def li nga ñëw teew tamit mu mel ni ñi bokkub teen ñooy laxa sooy looy wax ci lii waa Babacar maa ngi lay delloo ziar mhm. di la nuyu di nuyu ñaari mbër yi di nuyu assistance bi fi teew yëpp mhm. di nuyu sunu xarit sunu grand Ibrahima mhm. di ko wax welcome mu dal ak jàmm ñu ngi koy teeru mu ñëw làmb nii la lii la soxla te lii la laaj. mooy ñu nga xam dañuy ñëw jël seen alal. participer ci ndax euh, ndaw ñi tey boo xoolee ñëpp ñu ci bëri ñu ngi ci làmb ci yaakaar ci làmb. mbëri ñoo ëpp journée yi ñoo ëpp promoteurs yi. kon su amee keneen ku ñëw di dooleeku ci luy jëmale làmb kanam rek na ko ñëpp ñaanal. tàllal ko loxo dooleel ko. ndax wax na leen ko du gan ci làmb waaye gan la ci promoteurs yi. amaana am na si ñoo xam ne sax mën nga leen njëkk ci làmb ñu njëkk la ci ëttu promoteur yi en tout cas ñu ngi koy dalal jàmm di ko wax ne sunu garant la sunu lépp la ñu ngi koy ñaanal yal na am réussite ci li muy dugg nii mu am ci lu kawe njortam yàlla bu mu rëccu lu mu ci doon duggee na ci gis avancement mu ñëw dugg seeg bisimilahi rahmaani rahim mhm. bu ciy génn tamit mu génn seeg alhamdulilahi rabil alamin te na ci dema dema dema dem ba retraité ci ñu ngi koy ñaanal loolu ndax képp ku ñëw dolli ci njabootu làmb rek mhm. Ah, lu gën la lu rafet la ndax làmb jamono ji dañ ko soxla làmb ngi jooy làmb sëngéem na mhm. soo waxee mbër làmb la ñu yaakaar mhm. chaque année da ngay gis mbër yoo xam dañu année balance du ñu bëree kon su amee promoteurs yi ñëw di dugal seen xaalis si làmb nañ leen dooleel wan leen yoon bi te yërëm leen mhm. waaw làmb dañu yërëm promoteurs yi oyofal yu bëri xam ne làmb moo laaj loolu làmb ji tollul fu ñu koy diisale ndax su fekkee ñi ci war a jàpp jàppuñ ci ñi ci war a dugal seen loxo dugaluñ seen loxo mm. sponsor amul CNG na doon partenaire promoteur yi doon mm. sponsoru mm. promoteur yi man chaque jour dama koy wax damay tëgg Gambie di tëgg Sénégal ba gis naa yu bëri tey ci Gambie mm-hmm. ñoo leen njëkk ci làmb fuuf waaye Sénégal war nañu roy ci ñoom ci loolu mm-hmm. ndax dañuy dooleel comme baa bu xasee taxaw mm-hmm. reliquats yi CNG bi moo koy fay waaw loolu gis naa ko ci Gambie reliquats yi CNG ñooy dem jël seen kees seen banque fay mbër yëpp seen reliquat mhm. door a topp promoteur te loolu yëpp luy dooleel làmb la ndax làmb moo toll foofu noonu su ñëpp lépp matewoon rek mhm. jafe-jafe du am waaye nañu xoolaat yenn yi taxawu promoteur yi jàppal leen pour mbëri bëri làmb avancé loolu lañu ciy wax dinañu euh, tamit Père Bourkhane Mbaye Diallo Dembélé mbay Ndawaan mhm. ak ñoom moo Anta ak yëpp dañ koy wax tey mbay Diallo dañ koy wax mention spéciale ñun ah. tey ñu demee def formation mënoon nañu ci génnee ne bokkuñ ci waaye di fàttali ne Dembélé tamit jaar na fa waaw ah, Dembélé mi yor na diplôme moo tax du wax erreur ci làmb nag lu mu wax ci làmb ah, xam la waaw lu mu wax na règlement jàng na ko comme ñun nuñ ko defee ñu ngi leen ñaanal bu baax di nuyu association boobu man maa am chance ci fans club uh-huh. bokk ci entraîneur yi tey maa ngi yor seen yor seen carte suñu amee réunion am naa droit dem kenn du ma yow bokkut ñëw bokkaat ci promoteur yi bokkaat ci fans club bi bokkaat ci presse bi waaw loolu nag dañuy wane ne ndaw lañ rek na ñëw ñu ñu góorgóorlu laal ci buntu yëpp làmb avance ñun avancement noonu la ndaw taal bu të tàkk noonu lañ koy uppee góor da ngay bëri kii quoi bul yaakaar ci dara rek léegi sa journée kañ la tëgg nga lu doy waar yow itam magi kii yaa ko tëgg waaw magu magu kii la 21 moo jiitu Pape Ndoye ah Pape Ndoye Abou Ndiassé moo jiitu Pape Ndoye Abou Ndiassé oh, si tala foofu Euh, nga jël Mam Mor bu Fass Seex super jamono Siteu bu Ngor Franc mbër. jeex jàmm Milki Sow journée yoo xam ne nii ñoom Modou Anta xam nañ mbëri nekk na loo xam nañ yaakaar nag 14h incha allah rabi Iba Mar nañ ko tëj ñu ngi ciy woo nag ñëpp denc ci woo ñëpp ñu ñëw dooleel ñu suñu jugee ci loolu nag bët set la 26 la ñuy commencé jëm ci la 25 décembre. ndax combat bi nga xam ne dafa ñor Sénégal ak Gambie. dama ne dama ne jamono ji mooy combat CEDEAO ndax lu ñuy woote Sénégal ak Gambie su amee ñaari mbër ki nekk Gambie ki nekk Sénégal mu lëkkale CEDEAO mu lëkkale CEDEAO ñu boole lamb jooju mu dem feesal stade quarante mille places lamb ji am na demee yeggul ñun suñu ngor mayuñu ñu ñu bañ a yeggali lamb jooju ndax askan wi ñoo ko loon xaar bàyyi ma njoon xoyantaan fu ñu jaar ñu xam nu mu demee Gambie nag ñu ngi koy waaj Gambie moom am naa ay preuve ne seen kilifa yi jël nañ seen matuwaay képp ku bëgg a ñëw da ngay ñëw gratuit ñoom dañ jàpp ne bëri wuñ ci nekk Baye Mandione de dañ jàpp ne mbëru gambi mooy ñëw drapeau Gambie lañ Sénégal contre Gambie non Sénégal contre Gambie la pour lambu sport la nag ah, moo tax su su gars yi yéexee may ragal gàcce am de Gambien yi ñëw teel a ndax ñoom si stade bi la ñuy fanaan ñëw feesal stade bi non xoyantaan moo ko waxal boppam lu xoyantaan wax mu ne bi yoon suy ñëw day ngemboowaale coupe ongle ngemboowaale rasuwaal wax na ko ci kanam la lu ci làmb tamit waaw nee na su pour suñu ne bàyyi ma mu bañ mu tër ko biir géew bi dagg ay weem loolu nag njoon dina ci tontu waaw ci kanam la ma bu ngeen boo gàmbi ba fii ah. da ngay coupe ombul ah. dina booy balaa mu wax ah. seen premier mu mu mu mu waaw tamit sa digganteeg li ngi ni ko laay ñu ngi ciy wax mu mel nii le vingt cinq décembre jooju ah am lu rëy lu ca moom suñu yàgg nañ avant làmb ndax date bi la 25 moo ko moomoon su jëlee jox ñu ko pour ñu organiser ci Baye Mandione Xoyantaan pour lu jëmale làmb kanam la ndax gis na ne làmb jooju làmb Sénégal bi la te moom am na lu rëy lu muy waaj Gambie war ci ànd ak ñun. seen première face à face dinañ ko si def duñ si liggéey en tout cas incha allah rabi bu sottee ligue ak équipe wax ñoom fan lañ jëm ci bis boobu noonu. fan lañ ci jëm waaw kontaan naa si yow jàmm. am na solo yàlla na jàmm yàgg notre frère jamaïcain borom PA borom Gambia borom Saloum léegi eh, ñaari mbër yi defe naa ñooy jeexal de fi mu nekk nii ah Ndiaye dégg nga li fi yi wax li fi jot a génn yëpp woote bi une minute mu gàtt rek. waaw li fi jóge jaar lépp rafet na waaw di ñaan bés bi rafet nii. waaw di woo waa Colobane waa Medina Robos ñaaco kër gi fas fépp daal waaw fekk supporteru Ndiaye dina rek maa lay woo ci bés bi. ñëw jàpp ci bi defal ma ñaan yàlla suturaal ñu may ñu ndam. waaw waa ji moom dañ koy sant bu baax di ko gërëm parce que affaire yi métti woon na quoi. waa gars yi doxee nañu ku ne mais xëj na ci moom la ko yàlla tudde woon waaw di ko ci ñaanal bu baax mu am ci lu kawe njortam. waaw di nuyu sama gars yi ne extérieur ñoom moor Ngom Min Saynu gars yëpp daal di leen wax ne combat bi seen combat la ñu taxaw ci jàpp ci. waaw ñoom Aliou Soung gars yi yëpp daal ñoom Mbaye Tine Laay ñoom ñëpp ñu ngi ci kaw gi waaw ñu ngi leen di ñaanal ñu taxaw ci jàpp ci combat bi bu baax di wax waa Bawol ñu pare comme nañ doon pare waaw lu ñu pare rek man dinaa pare lu goraw waaw jéena waaw di sant comme fi mu jeexalee rek promoteur bi di ko wax ni yaakaar gi moom suñu ba tëgguñu yàlla na yàlla na gis lu kawe njortam waaw di ñaanal suma papa ak suma yaay fu tëdd yàlla xare leen aljana ñoom ñaar ñëpp ak mboolem jullit ñu fa fekk ñaanal sama magi jigéen yi nga xam tamit am na ñaar ñu jot a dem yàlla yërëm leen waaw di woo comme waa Caareer comme dañu njëkkoon naa woote di woote waat ñu ma daan jàppale ñu gën maa jàppale di sant suma mag bàyyi ma ñun bu baax bi ma ñàkk ay waajur ba léegi moom moo may taxaw moo jabaram Rose fu ma taxaw dinaa ko wax di sant suma mag doomi bàyyi bu baax a baax bëggul ma xiif bëggul ma mar ma nekku mag ñoo xamante ni man ñoo bokk ndey ñoo bokk ndey quoi man samay doomu bàyyi kese laa nekkal te dañ ma yor yor bu rafet si lu ma neex rek la ñuy dox kon sant rek laa leen man def quoi di nuyu sama père Bourkhane bu baax a baax a baax a baax sama papa dama ko dénk avant moo génn àdduna te depuis boobu ba léegi moom mooy moom mooy toppatoo waaw di ñaanal caare mbiri caare am combat yëpp yàlla may leen dem ku si mel ni ñoom Reug Reug ak Brise de Mer xam nga di leen ñaanal yàlla may leen dem ñi nga xam amaguñ combat yàlla may leen combat may leen ay ndam di sant suma entraîneur Pa bu baax a baax tamit sonn na si man di sant suma magi jigéen yi nga xam ni ñoom ñoo kër ga dama leen a bëgg a dimbali moo tax may si làmb dañoo yaakaar ci man ma yaakaar làmb kon du adversaire di caaxaan damay liggéey ah, comme nu ma la ko chaque jour damay liggéey man adversaire bu ma jël su ma la daanee war nga maa war naa laa daan soo ma daanee war nga maa daan ndax damay jël adversaire potentiel yoo xamante ne damaa war a bëre ak ñoom man new ma fii tànn lu yomb waaw waaw na saf kaan waaw jaajëf kon léegi dañuy dem nag léegi tout de suite rek ngeen gis ñu xaatim affaire yi mbir mi jeex kaa leen ngeen wàcc fii taxaw